asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey jii nag euh, ñu am yéene pour waxtaan ak yéen lenn ci li nga xamante ni muy lu sonal askan bi la muy jabet muy traitement pour wàllu diabétique nag jabet moom li ñuy njëkk wax doomu adama yi mooy feebar la bi nga xam ni suukar bu bare mooy jafe-jafeem bi ci gën a fes kon nag li ñu leen di may tey liy wàcce seen taux de sucre ba boo leen ko tàmmee jël au fur et mesure yàlla dañ leen dimbali docteur bi saa bu defetee test de jabet à jeune yàlla dañ leen dimbali kenn dootul gis si yéen taux de sucre bu élevé bu yekk yàlla mën na ko wéral kon nag li nga xamante ni moom la ñu jàpp xam ko gëstu ko ci lii ñun nag ay gëstukat lañu ay chercheur lañu kon nag yàlla moo ñu may suñu xam-xam màcc ci loolu bu wér a wér a a wér a wér dañu spécialisé wu ci lu ni mel li ngeen njëkk gis ma yor ko nag muy laaj laaj moom ñu xamal leen lu ci baax la waaye daañu leen woon naka ak nan nan lay àndee principe actif yan ñoo ànd ak molécule yan ñoo ànd pour mu mën a faj jabet ñaareelu mbir ba lii bone ko xoolee muy xobu nebedaay nebedaay moom muy moringa ñu bari xam nañ ko ñetteelu mbir ba boo ko seetloo ba ci biir muy xobi laurier laurier itam macha allah ku bari vertu la jëm ci wàll loolu la may mujjee nag mooy ni nga xamante ne mooy avocat avocat nag. sama mbokk yi xam nañ ko bu baax a baax a baax lu baax la ci jabet kon nag ngeen suivre ñu ñu won leen nan la ak naka la dañ koy defe li ci njëkk rek ñu daal di dagg suñu laaj bi rapidement laaj bi cinq doom la moom la ñuy njëkk jël dugal ko ci biir cinq doomi laaj donc avocat bi dañ koy haché avocat bi dañ koy haché comme ni ngeen ko gisee ñu boole ko lépp nga def ci ndox 1 litre et demi butéelu ndox ba mu fees 1 litre et demi ñu daal dee dem ci sunu gaz taal ko bàyyi ko mu baax mu ñor ba ñor ba ñor ba ñor pour avocat bi mën a yàbbi à 100 il faut mu baax 15 minutes kon ñu xaar chronomètre dans quinze minutes ñu dellu si waat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey ji nag ñoom am yéene pour waxtaan ak ñu yéen lenn ci yi nga xam ni macha allah ñu bari xamee nañu ko muy jaaru yi nga xamante ni dafa baax pour cat dafa baax pour làmmiñ day ubbi wërsëg xaalis mën a ñëw bu baax tey toog ci loxo jaaro bu bële bii moom mooy def loolu dafa ànd ak ay ñaan lépp luy def def bu bon rek bu loo ko nit defoon sax day dal fii waaye day dellu ci ki ko def macha allah jaaro bi am na itam bu rouge pour stabilité ci seen wàllu sëy am na ñoo xamante ni amaguñu jëkkër yàlla dimbali leen ñu sëy ak ka ñu bëgg am na góor ñi nga xamante ni dañuy bëgg am soxna waaye lu ñu dajale pour takk soxna rek day yàq wala boog mënuñu am dara pour takk soxna mel na rab moo leen topp wala seytaane moo leen topp wala ka ñu bëgg sax kooku xoolu leen jaaro bi nag du dafa am lu mu àndal ay ñaan bain mystique bi ngeen gis nekk ci papier ali mooy ànd ak jaaro bi lépp lu ñu xam ci alxuraan ak xasaaytu sëñ tubaa moo ne ci biir incha allahu rabbi képp ku ko jëfandikoo sa buntu wërsëg dana ubbee ko ci kàttan yàlla képp ku ñu soxla nag mën nañu woo 77 169 45 45 77 169 45 45 sunu recette mi ngi nii formule bi la indi muy xobu nebedaay ak xobu lorie ak juróomi doomi laaj ak avocat kon nag képp ki nga xamante ni yaa ngi am jabet yàlla mën la dimbali ba sa taux de sucre du yéeg ba jaaxal la ndax jabet ñu bëri xam leen ni dañ leen di am mujj amputé dagg seen loxo wala dagg seen tànk wala fu ñu am góom dootul wér te daf leen di maigrir di leen jeexloo du jàpp ay bopp yu metti ay bët ay fit ay yax ay yaram buy metti yaram buy tayal loolu yépp lii rek mën na leen ci dimbali kon képp ku am jabet soo koy jëfandikoo sa taux de sucre dina wàcc wàcc wàcc wàcc ba macha allah. ba képp ki xamante ni moo doon sa médecin bi la don fajj rek dina kontaan ci sa résultat yi nga am kon nag ñoo ngi koy baaxee ñëpp ñëpp ñi nga xamante ni ñogi bok ci GIE ak association yi nga xamante ni pour les diabétiques ñoo ngi leen koy recommander vivement ba na ci ñëpp jot ci carton yalla ak baaxam ak yërmandeem képp ku am diabète ak bëgg prévenir ci diabète ñoo ngi lay may recette bi sa suukar du yéeg mukk sa sucre du yéeg mukk tank yang koy jëfëndiko ci carton yalla kon nak ñoo ngi leen koy may di leen ko conseiller vivement télécharger leen recette yi partagé leen ko pour ñenn mbokk yi ngeen sauver ay vie jërë ngeen jëf Serigne Mouhamad Lamine Bara Fall Géejawaay arrêt du bales kon nag ñu ngi wax jërëjëfe Serigne Touba jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall